barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan ay may muy limaa yi man mii la def président d'honneur yónnee ma ko yónnee ma diplôme bi mm-hmm. te musuma teew sax ci seen daje yi waaw ci mbaaxaayam la ko defee ak ne mm-hmm. sa taxawaay du taxawaay ilimaan yi rek moo tax mm-hmm. yow mën ngaa nekk président ñun ñëpp waaw fu mu toll te dëgg ragalu ci kenn dëgg la waaw ragalu ci kenn rusul ci ko wax lépp lu tënk nit ñi rek ci wax ko mën na ko wax dama nekkee commissaire amee mu nekk ilimaan ci biir aj gi daan nekk ilimaan rawat na def ilimaan mm-hmm. waaye nag defu ko muy njiital ilimaan mm-hmm. waaye man dama nekk commissaire ma egce màkk rek laa ko wax na ko man fal naa la yow yaay njiiti ilimaan yi nekk yëpp mm-hmm. waaw te loolu yëpp xam ci la moo tax ma def ko demam nag métti na lool naa ilaaha wa innaa ilayhi raaji'uun ñu ko ñaanal yàlla yàlla bu mu fekk a ci kanamam yàlla bu mu ko bàyyi ci gannaawam te bu demee tam yàlla dëkk ak Cheikh moom rek a doon waxee moom la doon dundee moom basar moom basar bu bàyyi bii nga gis ñu mm-hmm. mool bañ koy mool ci jamono boobu moom xale bu tuuti la waaye bu moo ko bind noonu bindam lañ mool noonu a bindi Moustapha bind ay Moustapha moom mool noonu waaw mm-hmm. loolu basar moo tax noonu basar kenn tànn naa loolu basar mm-hmm. xam nga moom la ñuy gàmmuwaatee fii yëpp ñu bëri tam ñuy gàmmu moom naan bind moom ci boppam ñaar fukki at ak ñeent la am. ñun sa waa mi ngi itam ba mu koy bind di ko sotti ci loxoom ñu koy mën boobu xam na ne ay ñaar fukki at ak ñaar lay am. moo hmm. ko defar ci jamono boobu. Hmm. ay baax a baax la. Hmm. xam ne téléphone mënu ko lim. alhamdulilah man na xaritoon naa moom lool. fi mu nekk nii waxtu wu ñu waxee bis. di ko a indi la incha allah incha allah bu boobaa Alfayda dana la ànd ak yow allah gunge la ci bu soobee. waaw baax na Alfayda FM. Ah,